mbokk yi ñu ñëw ci ki nga xam ni moo di Modou benn bis la woon bisu samedi la woon ñu fekkoon ko Assane Diouf mootloo ñu fekkoon ko Assane Diouf Modou ñu naan ko Modou muy xale waaye boo ko dee xool ci anam yi muy bëree da lay niru mbër mu mag te booba xale la mu ngi bëri ay deuxième combat waaye mu wone jomam xool ni bu jëkkoon Parcelles Assainies bokkul woon ci làmb làmb buñ ko daan wax faasa tax séeréer yee tax écurie pikin écurie Njàmbur écurie Waalo ñoo ñooñu lañu xamoon ci làmb waaye mu ne dinaa yëkkati ma nit fi ma ne dinaa fexe ba fi ma ne ñu tudd leen ci làmb grace à un grand chanteur mu di rock mbalax jël écurie bi tudde ko rock énergie xale yi di ñëw xaadim gajaga fa la jaar wone fa jom wane fa ngor Moussa Dioum Zos ñooñu ñëpp bokkoon ci écrit boobu nga xamante ni moo di Rock Énergie waaye booba xale bi xale bu ndaw la xarañ gi feeñe Assane Diouf ñu siiwal ko xale bi am ci jom di bëree di daan daan maasam daan ñi nga xamante ni et daan leen yombul daan Double Less numéro 2 yombul daan Papa yombul def na ko daan Balla Diouf yombul woon def na ko daan Issa Pouye yombuloon def na ko daan ma Mandione yombuloon def na ko Modou di xale boo xamante ni ca dëgg-dëgg popularité bi fàttali na ma fàttali na ma Mbaye Guèye ndaxte ñi muy daan ñëpp ay ndaanaan lañu ci wàll bëre ndaxte gis ngeen na mu daane woon Paul Maurice yaakaar naa ni bu dugg see ci làmb sa xel dina dem ci ñoo xamante ni seen popularité dafa jéggi woon dayo sa xel dem ci phénomène Mbaye Guèye sa xel dem ci phénomène Moustapha Gueye phénomène Double Less phénomène Mohamed Ndao Tyson tey jii Modou Lo mooy yaakaaru Parcelles Assainies di xale wut na doole ngir lan le 15 juillet mu war a yaakaar troisième victoire bu mu war a am biir Fass ndax ginnaaw Balla Diouf ak Papa Sow Gris Bordeaux dina xajal Modou mu jàll loolu la 15 juillet lay leer stade Demba Diop WWR Luc Nicolas Enco drapeau ajaratu xaar bay ma jàgg ndaanaan la ku daan yaay drapeau ndaanaan